lolu nak responsabilité commune yi la dinañ ci japp nag à titre personnel mais il s'agit d'une responsabilité communale mais li ma leen bëgg Parce que Parcelles Assainies effectivement am nañu problème assainissement ni ma ko gisee état bi dina ko jël en charge parce que problème bu c'est très lourd on a beaucoup de points bas unité 7 fii am na unité 13 am na fi 25 am na fi 15 am na fi unité euh, ak 24 euh, am na fa recensé nañ ko unité 22 li ma bëgg mooy bu élection yi passé ñu jublu ci problème yooyu waxtaan ca gi ci war a waxal fexe waxtaan ak président xamal ko ni Parcelles Assainies il y a une urgence absolue pour nous régler cette question de l'assainissement. Oui, question au cadre de vie. que nous avons les bonnes wax heureusement nous avons un programme 100 100 employés. Inch'Allah, emplois nous incha un dinañ ci très rapidement parce que nous avons ci tout comme la question de la sécurité sociale de nos artisans et du secteur informel ces questions sont prises en charge pour fêter la victoire de Benno Bokyakar. Et aujourd'hui, Gislienne, tous les enfants des parcelles Assini Filen Dagné, l'île de Yakar, mais surtout, nous savons que nous avons de lourdes responsabilités.